ci jataay bi di jël nuyoo boobu nag bu ma limee mën naa juum ci kilifa yi fi teew ñëpp ñi di suñuy kilifa ñi di suñuy sëriñ ñi di suñuy wóllëre ñi di suñuy mbokki daara ñii sax di suñuy mbokki donga yu yàgg-yàgg su ma jëlee nuyoo bépp nag teg ko ci loxo sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Moustapha Massamba mu tegal ma ko ci mbokk yi fi teew ñëpp ndax li ñuy ñëw fii fekk nañ ko fi mu jiitu bu yàgg-yàgg di nuyu sëriñ Seexu naa mi nga dendal macha allah muy moom it moom maam daam sëriñ Seexu naa mu bàmpana di ko nuyu bu baax moom it du mbokk bi ma tuddee bi ma waxee sax mbokkum nga moom laa ci jublu moom moom bokkum dongo mu yàgg la ci kër sëriñ Abibu boobu loolu yàgg na lool bi ma gisee léegi rek maa ngi koy day di ko di ko xool di xaw a fàttaliku yu xaw a yàgg lool <laughs> xaw a fàttaliku yooyu miskit maak yeneen ak yeneen <laughs> yeneen ak yeneen ndax mu loolu am solo muy lu am solo amoon nañ fa kilifa goo xam ni yàlla koo baaxoo woon moo xam ni ko amoon wërsëgu am keesi miskit yi la waaye yàlla dogal xam nga miskil neexut a neexut a denc te guddi la koy faral di jëfandikoo moo tax kurij kurij ji day tax gaa yi bëgg ko ci ñaan ah nag da koy xaw a log rek kon nag mbàkki waaye waaye du yow nag dama ko <laughs> kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci sant yàlla bu baax wallaay am ci mbégte lool jataay gën a koo rëy di nuy mbokk yi nga dendal ñëpp nag ñëpp ñëpp rek ñëpp bu ñëwee ci sunu wet gii di nuyu Serigne mam Mor Boussa moom it di macha allah moom sëñ Talha Bousso jàmbaare ci alxuraan ak sëriñ Saam ñoom leen nuyu bu baax di ziyaare ñi fi ne nekk ñëpp di ñuru sëriñ Fallou Bousso ñoom ñoom ñëpp di leen nuyu di nuyu sëriñ Mam Moor moom sëriñ Modou Bousso Dieng moom Cheikh Mahamadou Fadal mi xam ni macha moom it te mu jiite tubaa ci kanam macha allah muy ko am solo lool ci dëkk bi. waaye am solo lool kuy taxaw daara koo xam ni macha allah lii yaakaar naa def na ko ay yoon yoon muy hmm, ko jàmbaare kon ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu soxna yi di nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ñoo fi teewal chef eh, bu Mbàkke sëriñ bi bu sa ñu ngi lay jottali sunu nuyoo boo demee nga jotal ñu ko sëriñ bi ñi nga ñi nga bokkal liggéey ba ñëpp di jël suñu nuyoo di ko tekki loo xam sëriñ Saam nga joxal ñu ko sëriñ Ahmadul Badawi moom ci liggéey bi ko sëriñ bi sas tam def ci lu am solo yen ngeen koy ci jappale bu baakha baakha baakha a baax di nuyu sunu yeen yi nga xamni ne waral nak li moy tagge bu ne am le ko ma jitton wax na nga jappal jappal jiw ta lolu kon yeen yéene yi serigne daare yi ñu jàkkaarloo maa ngi ciy jàngat léegi rek may xool ndaysan ma gis ci ñu ci bari ño xamni xagn na at yi du bari lool lool waye sunu xel dal alhamdullilah wax dëgg yàlla ndaw moom bu ko suñu borom tey lay xiir ci bëgg lu baax rawatina mu nekk ci tool bi nga xam ni suñ tubaa bu amee tool wax nañ ko mooy alxuraan ngeen nekk ci di nab nabi ñu seen leen ci am nañ yaakaar bu baax a baax a baax a baax baax ci yéen kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu soxna yu baax yi nga xam ne ñoom it taara taaral nañu gis bi ci bëgg lu baax fopp foo xam ni góor taxaw na fa ngir wut lu baax rek ngir nekk ci seen wet ñu egsi nag ci ñi nga xam ne ñooy waa markasu Iqra balaa boobaa it ma nuyu ñi nga xam ne ñoo leen doon xamal li taxoon ñu dajale leen fi te muy ñi nga xam ne ñoo leen doon jéem a laabire di leen yee ci népp loo xam ne day tax day tax ngeen am day tax ngeen am ngeen am ngeen am wàccuwaay bu dëgër bu am solo ci li ngeen di nekk su ma ci tuddee sëñ Abdou Lahad ñang mu tegal ma ko ci loxoom ñi ko doon taxawee ñëpp euh, léegi rek maa ngi koy ojo ab ojo ñi ci jokkante fan yi may wax ni ko man bi may lay seetaan ak keroog bi ma fi ñëwee macha allah dama dama bëgg a dem jàngiwaat sax delluwaat di jàngale euh, ndax ni mu koy ni mu koy joxee rek bu fekkee am nga dara loo yëg ci alxuraan wala am nga dara lu lu ñuy looy yëg ci xam-xam di xam ne ñii li li ñuy def. wala li ñuy li li li ñuy num tëriif pétaagu biñ ciy dugal maanaam dara dàq ko lu neex la lu neex nga nag lu neex moom mos la mos cafka gu neex la daal boo koy boo koy seetaan ndax kenn ku ne li ngay supporté moom loolay neex ci yow kon nag sëriñ bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci encouragé bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ni ma la ni ma leen ko waxee woon rek yéen moom kenn warul dem ngeen des ci wàll yëpp nag ndax soxla woo nañ ko dañ ko soxla woo jàng baax na mokkal alxuraan baax na waaye xamit ni ma ko waxee ndaw ñi léegi jafe-jafe yi nekk ci biir daara ak li ci biir li nga xam ni maanaam seytaaneek li ci laxasoog li ko yàq lépp ak njuumte yi ci am ba war a indil daara yi ci jafe-jafe ngeen di def lii dara gënu ko maanaam lii lu am solo la lii moom gis-gis bu rëy rëy rëy la boo xam ne bu kawe kawe la sëriñ bi yaakaar na wax na ko fii loo xam ne état la waroon mooy fexe ba nit ñi citoyen ñu jàngaleen bu ñu leen jàngee former leen ñu nekk nit ñoo xam ne ñu amal solo seenub société lañu doon ndokk nag ñun bi nga xamee ne amuñu lu dul alxuraan ñu teel a ko ñu mel ni ñii may bëgg a tudd di maam Serigne bi nga xam ne moo jiite markasu Iqra te wax naa ko nee naa ko du lu du lu yàgg waaye mel na yow am nga ay résultats yu rëy rëy dëgg yàlla man ne ko bu bu màggal tubaab gii rek liggéey bu am solo bi nga ci doon liggéey ci nit ñi di leen gindi ku réer ngeen fexe ko yóbbu fa mu jëm xale bu daw ngeen fob ko nax ko ak xale yi nga xam ni dañuy daw ci daara yi ngeen fexe ba gindi leen delloo si leen dara dàq ko dara gënu ko am njariñ man am njariñ gum am njariñ man mii ne daara ji ma yor fan yële am na donga bu fa daw waaye comme euh, ki yore daara ji moom am na ñenn ñaa ngi sax ci biir ñu ngi may seen ñoom sëriñ Cheikh bu sa ñoom ak ñoom sa ñoom ñu njombul ñu ngi ci waaye fi ñuy jaarale xibaar kii nga xam ni moo war léeg-léeg soxna si ne ci moom léeg-léeg daf may xaw a nëbbu yu xaw a kii maa am na yoo xam ni la laaj yi da ciy baree baree baree bare ba dinaa koy danañ ko bëgg a lijjanti mu bañ a yegg si ci man ndax donga bi daa daw loo ko waral ak lu mu fu mu def ak mu nàngam daanaka danaa mujj moom doonu inspecteur boo xam ci laaj metti na lool moo tax dañ ma koy xaw a nëbbu sax léeg waaye am njariñ gu markes bi am njariñ damaa toog dakaar yekk ba yàgg ñu piblier ci benn xale biñ publier dañoo kanam gi feeñul numéro téléphone yi ci nekkit xaw ma ko waaye tenue bi ma ne ah tenue bi est-ce que du suñ daara waaye comme tenue dañoo bari du taxit ma bëgg sukkandiku ni daal waaye daal ñaaw ñaan doot bi ma ñaawee njot di ko xëcc di ko xëcc di xëcc écran bi di xëcc kii bi ci laa dem ba xam ndeke te donga bi ci suñu daara la jóge kon loolu njariñ la ñoom kon ñoom a xibaar keroog ni ma am nga donga bu nekkoon sa kër bu daw daal di koy def ci seeni numéro ca saase yàlla def ca sutura mu daal di mel na ni bu lool bu ngeen bu ngeen bu ngeen yamoon ci loolu rek ci bis boobu mel na ni kon am ngeen résultat yu rëy rëy rëy waxumaa gi fi xewaat kon loolu lu am solo la xanaa di ci fas yéene ñaan rek sëriñ Maam moor Mbakke mi nga xam ne moo fi teewal Touba ci kanam te moom it taxawaloon na ko daan ko def def na ci yu am solo sëriñ bi lii moom lu am solo loo xam ni ak sëriñ Sam mi nga xam ni yéen a nekk ci mu jamaa bi ngeen xam ni fexe ba lii ñu gën ko yaatal bu baax a baax a baax a baax a baax gëna a tax doole leen ndax doole ji moom waxu lu ndax dama wax ni moom wu ñoo dajale ndax ñoo xam ni macha allah duñ la laaj ay sees duñ la laaj lu lu xaw a sakkan lu dul moom bu ñu amee basang man cee toog bu ñu amee matelas man cee toog bu ñu amee café naan ko bu ñu amee ndox mu tàngin man koo naan ñooñu naqari wu ñoo jëflanteel te ñooñu mooy ñii kon nag sëriñ bi taxawaay boobu ngeen taxawoon ñi ngi lay ñaan nga gën cee xam naa ni yaa nga ca ndax barab ba ba nga fa nekkee daan nga ca def lu am solo ca daara ya waye comme yow ya jité kër ga légui li nak mom lol lol yi mu yaatu lol lol lol lol ndax lu am solo kon serigne Sam li dal na ngeen fexé ba gën ci japp yow mi fi teewal IAFIT serigne babakar serigne serigne bu serigne fexé ba serigne babakar ñom li ñu xamni ni fi ño xamni am nañ ay bëgg-bëgg bëgg-bëgg yoy nak ñu fexé ba gën leen orienté it man koy wax maam serigne fexé ba kayit bi buñ ko lo xamni rek dañ koy bind ci ñun ñunu neen masque bu ëllëgé nga mëna dem fenen té du la mëna waaye ndax lépp des koy lijjanti rek nañ fexe ba euh, duñ ni duñu duñ duñu duñu duñu jaxasoo ak état waaye duñ leen bàyyi mu dem la cay njariñ loo xam ni kii du dana mën a génn ba ñu of ñi xam ni foo ko mën a yóbbit bu ëllëgee boo taxawee danañ xam ni kii kat ku mokkal alxuraan la waaye yëmu ci ab jàngalekat la waaye yemu ci ku ñu formé la koo xam ni dana tax ñu mën koo gën a wóolu fa mu jëm loolu it warees na koo mën a gën a yaatal bu baax a baax a baax beneen ba ca des mooy sëriñ Saam sëñ Maam mool ñoom ñi ngi ci te ñeneen ci ma ma ci am ab seetlu may gis ci daara mooy li ñuy wax internat xam nga macha allah wax dëgg yàlla ñu bari ci la ñuy jaar bokk ñu bari léegi am na ci te gis nañ njàng mi xam naa ni dina dina gaaw gaaw goo xam ni dañuy mokkal rek te dem kon ñu gën leen a gën ñaax ñu fexe ñu gën a jublu ci bind mooy li wax internat yi ñu gën a jublu ci fexe ba xale biit ñu bañ rek yàkkamti mu mokkal ci ñetti at ñeenti at ñu ni kooku mokkal na mu dem te bu yàggee alxuraan ni mel bindoo ko toppoo ko moom it day mujj la nga fa jaaroon lépp dootoo ko mën a jariñoo waaye am na leneen lu ñuy def loo xam ni sëñ Maam moor ñoom a ngi ci sëriñ Saam ku ku man dara noonu laa ko mën a tuddee te mën a liggéeyal sëñ Touba ñu gën ba gën ko yaatal ci quartier yi mooy daara yi nga xam ni dañuy jàng ngir yàlla du yàq dara ci internat yi mooy daara tànneef yi nga xam ne waa tubaa ci kanam def nañ ci am solo waaye doyul ndax dëkk bi dëkk boo xam ni dem nga ba maa ngi déyanteeg sëñ Saam léegi ma ne ko rek ndaw ñi booy booy dox wala ngay gëstu da ngay tiit ndax ku ne yaa ngi ciy jël li nga war a jël waaye daa ci biti sax daa Ah, te ñeen ñi xañ nag néew doole lay doon wala yeneen ak yeneen kon daaray quartier yooyu ñu gën cee fexe ba gën koo yaatal te lu yomb la ndax li may wax du du waxoon naa ko fii rek mooy ko yàlla man dara te nga nekk ci dëkku sëriñ Tuubaa bi am na loo ko war a manal la nga ko war a manal nag dafa du lu seer du lu jafe ndax fii pàkk am na gox yoo xam ni ci cinq millions la fay jar wala boo ko jëndee la ngay def ca daara ja yëpp jël ab sëñ daara teg fa muy jàngale yaakaar naa am na ko fi man moom te bu bari woon ci dëkk bi rek jafe-jafe yu baree baree baree bari dana wàññeeku te sëñ daara yii ma jàkkaarlool am na ci ñoo xam ni buñ la ko waxee buñ la ko waxul ñoom tàngoor wi dana dana dana dana danaa ko yëg xaw a metti waaye ñoom am na leneen luñ ciy xalaat taw bi am na leneen luñ ciy xalaat mooy ñoom ñi ngi xalaat tàngoor wi metti na waaye li muy metti metti ñi ngi naan mbaar ma ca kër ga bu tawee sama wanag sama roq ba sama fii nga xam ñoom da nga koy yëg ci nii ñoom mën ngaa yëg ni yow tàngoor wi yow moom mi ngi lay sonal waaye ñoom buñ ñibbee nu ñuy def ak seen wanag ya bu ñibbee nañuy def ak seen mbaar ya te yooyu yëpp nag ñekkul ci bu dee rek dañuy waxante te yàlla rek wér mooy ci goxi goxaan yi wala ci dëkk bi ci Touba ñekkul ñu yàlla ma ne li ñuy wax maanaam jël a war wërsëg dénk leen ko te defaluñ dara lu gën a liggéeyal ci sëñ Touba jàppale leen mooy kenn ku ne daara fa nga ne ci koñ ba nga ne wala fa nga ne amul koo am na koo xam ni mën naa ni dana xëy sax di léeg-léeg ci jamono bu kër ki ne at mii ni ñàkk naa 10 millions wala 15 millions wala 20 millions ci loo xam ni cey bu ko defoon daara ju baax jox ko ab sëñ daara dana nekk loo xam ni lu sëriñ bii gërëm la te dana nekk loo xam ne dana gën a mën a ñoŋal alalam bu baax kon loolu ñu ngi koy lancé di leen ci woo yéen ñëpp ñi nga xam ne yàlla mane na leen ñoo ngi jéggulu kàddu yi am nañ mbégte lool lool lool lool lool ñu ngi koy jéggulu xanaa di wax rek sëriñ bi sëriñ sëriñ sëriñ naam sëriñ bu bu fekkente ni soriwul ginnaaw bu ñu ko sante pare mu ñëw fi wax ñi nga xam ne ñoo doon ñoo yore woon mbirum ñoo yore birum mbirum mi su ko defé dafa am ay lo sax lañ ko mëna jublu ay neexal lañ jublu won rek waye uh, ab ab ab soññi lañ ci jublu ab ab soñu len rek ci la ko laajoon mu ni ma tollu nañ ci ñent bi may ñew ah, man ka ñom kër wax deug yalla man lima ci jàngaate te kula la kula kula la xamal aw araf rek moy sa bur yalla dogal ñu ñu ñu ñu ñu ñu jangé ci lu bare bari kon nak tabaski gaangi jub buñ amoon lu upp doole loolu danañ leen ko andil jox leen ko ndax nekku leen nekk leen nit newul lu gën ci li ngeen nekkoon ci dëkku sëriñ bi te ñu nit maanaam it fa ñuy taxane wala fuñ mën a wutit buñ bu ñu amee buy buñ bu ko bu ko aw nit dee jëfandikoo yéen waa daar moom kenn du leen ci ëppale kon ñi ngi sant bu baax di ñaan sëñ Mam Mor Mbakke mi nga xam ne mooy moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne fii la ñuy defee liggéey bi ci këram moom it ci xam-xam ni mu ko fi taxawalee yàlla gën koo yàggal ko fi wéral ko fi lool te kër gi nii ñu waxee woon rek muy loo xam ni Euh, bañ koy liggéey ca Côte d'Ivoire amoon nañ tawféex yi fekk ko fa te borom mi lii la ci bëggoon ndax bañ koy def daf ni woon nañ gis nga boo demee ñi miin sëriñ si miin tukki Abidjan am na fi jombul ñoo xam ne miin nañ kër ga ca ajame soo demee mbaar ma nii la mel néegee mel nii nga xam sëñ Motula bi mu ñëwee gisoon ko jamono jooju la ko sàkk woon ci waa Touba ajame ñu defaloon ko fi ba bañ ko fay def dañ yoon nañ ko def ngir lislaam kon tey yaakaar naa bu doonte ni ñuy dëkk kenn du fi man bi waaye gis nga moom mi nga xam ni léppam da koo jooyaloon jëm ci lislaam gis nga tey kii kon daal na gën a na gën a na gën a bari lool ñi ngi jéggulu nag sëriñ Saam ñi ngi teg loxo bi jéggal gi nga ñaanal ñu mbokk yëpp hmm. ñu jéggal ñu ndax waruñu fee wax waaye mbégte lañ waaw mbégte lañu wax dëgg yàlla ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Basir mi fi jëm si hmm. moom sëriñ bu yit suñ boroom yàggal ko fi ak ndax waajuram ba ni ma ko waxee rek di sant bu baax di sant wax dëgg yàlla jataay bi daal neex na lool lool lool lool jànge nañ fi gise nañ fi xamee woon nañ fi fàttaliku nañ fi loo xam ni am na solo mooy sëriñ Seexuna mii rek bi ma ko joxee loxo rek sama xel dem na ci loo xam ni lu am solo la ci ci coono baag yi ca baree bari maa ngi koy maa ngi koy wax rek démb jaar naa dëkk bu ñuy wax mbar di dëkku sëñ Maam Mor ñoom ñii maa ngi koy wax sëñ Saam léegi ma ne gone yi ma àndaloon ci oto bi bi ñuy ñëw laa neen leen fii ci mbar bi ñuy leen niis ñun di jàngal xuraan fii 86 ak yooyu bu ñu daan yi ma ne ko fajar la ñu daan jël jox ñu ay mbaam danañ dox lu mat lu mu néew néew fukki kilomètre may wax seex mi àndal naan ko yéen bu ñu leen ko doon defloo jamono ji du yomb lool te booba lu méttee métti la woon waaw kon nag macha allah kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jéggulu di jéggulu bu baax a baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla sëriñ naa ñi ngi lay li ma la tuddit bari na waaye loolu daa am lu muy waral rek mooy euh, téyel gaag bañ nekkee ci yañ daan seq ak yëpp rek mooy sëñ Cheikhouna naa may tudd xam nga nit bu ngeen bokkee daara moom ndax jataay bi ñëpp ñëpp ñi ma ciy xool moom moo ma ciy gën a xam moom moom mooy gën a xam kii moom na meloon ca daara ja maa ngi fàttaliku sëriñ Maam Mor Fall xañ na du du ñàkk ñu ko xam ci biir mbooloo mi moo nekkoon kër sëñ Abibu di ko yaru ku baax boo ko séenee da nga koy xemmeem waaye bu ngeen dee jëflante ah nga xam ne nag jàmbaar kii na la lool lool lool lool dogal loolu ñuy wax xul naam yooyu gaa yi daan bind daan ko wecceeku ji xam ni macha allah ci ñu toppoon seen seen kii lool bind ci lu baree bari dem wéccé ko wayé amna ngon go na man ba ma xamna amna bëñ bo xamni ba nëga mënu ma saxami lu dëgër ci la ko won wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ maktar wa ñëw wa euh, kaddu yi am solo Muhammadul muntaha suñ borom yagal ko te wéral ko waaye buñ ko nuyo ñaanal ko ñaanal mboolem kilifa diine yépp ci Sénégal waye di jël nuyoo bu sell bu tedd di ko jaare ci cheikh mouhamadul xabbaan moom cheikh mouhamadul faadal bi nga xam ne moo jiite daaray alquran yi di suñ jawrin tamate ko sëkk ci woyof ak mbaax xam naa ngànta tax sax ñëwut waaye waxoon na ne dana ñëw ci jataay bi waaye loolu lépp nag ñu ngi ko teg ci loxol kilifa gu baax gi nga xam ne moo ñu jiite ci liggéey bi muy cheikh mouhamadul Basiir ibnu Sëriñ Abibu di ko yàlla baaxal bëgg alxuraan lool man cee soññee lool am ca passeport lool sama kalaas gépp buñ ci nekkee di na bi ba tey gannaaw yàlla ak soññeem ak taxawaayam ndax saa soo ko gisee rek sa pas-pas lay yokkuwaat kon mboolem nuyoo kilifa yi yëpp yu baax yi fi teew yëpp dañ koy teg ci loxoom rek mu jottali ko kenn ku ne fa nga nekk fekk nañ la fa jox la ñaari loxo sargal la ñaanal la bég ci yow lool te di la ñaanal dañuy bañ lim waaye kenn ku ne wàccuwaay bi nga am ci ñun te mooy wàccuwaayu kilifa ñu doon seeni donga ñi ngi jéggalu bu baax ci jataay bi ni mu yàggee ak ni mu xate ak ñi nga xam ne dañoo ñëw yitte ja des loolu lépp ñu ngi ciy jéggulu waaye xam na yéen ñëpp xam ngeen di leen fi indi te mooy wooteeb lislaam wooteeb sayxul xaddi moo leen fi indi sa Seyxul Xaddim mu ngeen di liggéeyal ci tool bi suñu borom bi yal na leen fay tànk dem yi ak dikk yëpp yal na ko yàlla def tuyaaba waaye nag sama kàddu mënuma cee sori te fàttali ko woon jàmbaar joo xam ne liggéey bii di markasu Iqra gannaaw yàlla buñ ko tuddee xeel yi dana ci dem yaakaar naa ne su ma yemoon foofu ñu bari ci sëriñ daara yi fi teew danañ xam ki ma bëgg tudd muy sëriñ Cheikh Awa Balla Diop kon maa ngi sàkku ñu def li tubaab di wax une minute waaye ñun dañuy def une minute da ñaan ñaanal ko ndax markas bi di santal Iqra gannaaw yàlla ak sosoom ak ak doxam lu ëpp ci liggéeyu markas bi ci ay xalaat sëñ si aw Balla moomu moo ca jiitu xalaat ci xalaat yu am solo kon buñ amee ngor wala ñuy ay jullit fuñ te war nañ koy fàttaliku di ko ñaanal te rawatina nag mu doon ko am taxawaay ci daara yi kon sëñ Basiiru Euh, ngeen ñaanal ko bu baax a baax kon ku mën a jàng fatiha lixlaas fukki yoon ak benn def tëje ko salaatu ala bii ñaanal ko fa fekk fa mu nekk suñ boroom jéggal ko te yërëm ko ak mboolem ñam fa fekk te ñu fi nekk ñëpp suñ boroom yàggal ñu fi dëgëral ñu ci téere bi markasu Iqra ci turu markasu Iqra ñi ngi sant bu baax jiital ci sant gi nag suñ jàmbaar jii nga xam ne mooy borom bis bi moom lañ tara rajaale bis bi muy sëriñ Maxtaar Jenn yaakaar naa ne ñi fi jaar ñëpp leeral nañ jëfam te jëfam fii mu ne àdduna bépp xam nañ ko rawatina Touba ci diggam ak daara yi ci diggam ak social ci diggam ak jàkka yi waaye ci diggam ak mboolem turuxal islaam yi nekk ci réew mi fu ci nekk teraangaam ma ngi fay dem rawatina yoonu murit moom jàpp naa ne amul génn kër wala benn daara booy dem te néewu la na taraangay sëñ Maxtaar ñëw na fi bu yàggul rek biñ koy wax bis bii ñaari million la yëkkati woo ñu ba ci néegam kenn yëgu ko mu jox ñu ko fa nga xam ne gannaaw yàlla ku ko yëg rek ñoo la ko yëgal te wax ne loolu ab tàmbali dong la waaye yéeneem weesu na loolu ndax yéeneem mooy mboolem sëriñ daara yi nekk ci dëkk bi di liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan kenn ku ci nekk mu fekk la fa nga nekk la war ci yow ci taraanga la war ci yow ca barab ba nga nekk mu def ko loolu wax ndama ko te loolu mooy yitteem te loolu it su ko waxee danañ ko gëm te danañ ko jàpp ndax barab ba mu nekk këram mu def ko daaray alxuraan ju mucc ayib ay sëñ daara nekk fa sëñ Cheikh sa mi ñu doon jox diplôme léegi bokkoon ci formation bokk na ci jàngalekat ja muy jàngalekat yu bari yoo xam ne boo demee néeg yi jàngalekat ya dëkk boo duggee ci néegam néeg jàngalekat yi moo ko gën a taaru wax dëgg yàlla man naw naa ko ci bu baax a baax a baax du ay wax waaye ay jëf la yu muy jëf yoo xam ne man damaa jaxasoo moom xam ko yëmut ci loolu waaye koñ ba mu dëkk mu def fa joo xam ne day dajala mbooloo yee ñu fay jullee waaye ñam dëkkal mu leen di dimbale waaye yëmut ca loolu koñ ba mu dëkk gis ne daara ja xëy na man daa am nag daara ji condition yee nam bindoo man naa am ñëpp jotewuñ ca mu wut ab jàngalekat ca koñ ba di ko fay ngir waa koñ ba ña jotewut ca daara ja seen ñuy ñëw foofu di indi seen i doom ñu fay jànge waaye yemut ci loolu mu gis ne àdduna ak li Serigne Touba woote muy jàngale mi daa war a yaatu te mboolem xam-xam yëpp la Serigne bi waxoon ne nañ ko jàng muy xam bu am njariñ mu ubbi ab complexe bu yaatu boo xam ne mboolem luñ soxlaa jàng boo demee da ko fa jàng ba yemut ci loolu sax wàllu xam nga ne sëñ bi daa waxoon ne nañuy jàng nañ koy jëfe waaye nañ cey boole kasbul xalaal muy lu lew mu def fa it barab boo xam ne la ko tax a jóg mooy di defal formation nit ñi ci wàllum liggéey moo xam ministère la moo xam téyeer la moo xam ba ci informatique ba ci lépp loo xam ne rek am xam-xam la muy ilmu naafi mu koy def boo gisee ma koy wax dama koy wax ne ko yow da ngaa nëbbuti léggéey liggéey bu rëy ndax sëriñ Muntaxa radiyallahu anhu sa sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko woote bi mu woote da ko caa wuyu bu baax a baax a baax a baax yaakaar naa ne sëriñ si maa ngi leen di wax na ngeen dem ngeen xool daara ja dem ci complexe ba yaakaar naa mu fatis sëñ Cheikh Mbacke nag yaakaar naa ne moom mat na seere ci li may wax ndax barki démb dem na fa ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite sellil patagose ci wàllu université bi ànd ak ñoom sëñ Samb Saak eh, sëñ Ahmadou Badiou yu yaakaar naa délégation moog sëñ Seexu naa dem nañ fa gis nañ barab ba lañ ca wax seen kàddu moo gën jot sama kàddu te ñoom ñoo ko seede ndax ñoom la sëriñ bi dénk loolu te seede dañ ne lañ fa gis gisuñu ko ci yenn école kon sëñ mataan ñi ngi lay sant di la gërëm ci duru daara yi waaye di sant nag ñi nga xam ne gannaaw bu dawra bi amee ba nga xam ne euh, diplôme yi mën a am ñoom ñoo taxaw doon jàngale bàyyi seen i yitte fajar teel ñuy xëy di ñëw sëriñ buñ ca tuddee sëriñ Abdoulahad Ñang moom sëñ buñ ñog jullit tudd ca sëriñ Moustapha Jaxate tudd ca sëriñ Jili Mbàkke tudd jël sëriñ Mouhamed Diop sëriñ Saliou Gueye ak lu ko jiitu sëñ Moustapha Diop Dar sëñ mooru Kara Diop ak waxayru waxayru ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye fii ñu nekk nag barab bii moom ñu ngi ñaanal al mujahidul akbar Cheikh Mouhamadul Mourtala suñ boroom dool borom doole maxfiratan wa rahma yaakaar naa ne bokk na ci lim sémboloon lislaam day ne woon kërug lislaam la loolu yaakaar naa ne barab bi ku fi ñëw sa xol dana sedd ndax waxtu sëñ Maamoor mi ko fi nekkal di ko bëgg xam-xam di ko yàlla dimbale biñ ñëwee ci moom di ko wax barab bi dana barab bi barabu lislaam lu ngeen fi soxlaati mi ngi noonu jërul ngeen di ñëw ci man boole ñoog sëriñ Mourtala jiite mi nga xam ne mooy jëriñam nekk ci kër gi ak Baye Cheikh Bey ak sëñ Moutala Samb ak mboolem ñu fi nekk buñ ñëwee dañu yaatal bu baax a baax a baax a baax ndax xamoon na ne sëñ Moutala léppam da koo joxoon lislaam kon yàlla nañu ko yàlla fayal maa ngi sant kilifa yëpp di gërëm ñëpp ndax barab bi dafa xat te wax dëgg yàlla ku ma ci xool rek sama xool day sedd ndax ay borom xam-xam yoo xam ne macha allah kenn ku ci nekk yaa ngi fees dell nga xam ne tey bu fekkoon ne ñu ñuy ñu ñuy jaay lañ bu doon ci tubaab bi ay njëg yu seer ay béy yu seer nga leen di daggal ngir ñu ñëw fekk si jataay bi te kenn ku ci nekk yaataa sa oto bàyyi si yitte bàyyi si yoo xam ne yu xat-xat bàyyi ay xat-xat ñëw toog kon loolu xam nañ ne liggéey lislaam dong nga tax ngeen koy def waaye xam nañu suñ jëmm ju xeebu ji amuñu solo waaye lislaam mu ngeen di liggéeyal ci toolu sëñ Sayxul Xadim yal na leen fay bég nañ lool markasu Iqra nag mi ngi noonu waaye nag mënuñu ñàkk sant yi sëriñ Muxtaar moom sëriñ Moodu bu sa jàng jàmbaare lislaam moom it liggéey bi dañu cee ubbil ndax biñ tàmbalee di kër kër yi di wuti buntu dañoo feeñalal ay bunt bi mu ci jëfee lañ xam ne liggéey bi macha allah liggéey bi macha allah ñu daal ci am yaakaar mu jox ñu barab yëkkati alal def ca barab ba ña ngi koy tàmbali di ci liggéey sëñ Mataan mais jox na ñaari million ñu tàmbali ko barab ba boo fa demee ñangay ngay dañoo bëgg buñ ko miiree ba pare bâtiment ya bâtiment fa nekk ñu war koo defal centre formation dana fa ne ba barab boo xam ne dañ fay faje xale yi dana fa ne jàngukaay dana fa ne danañ fa def foo xam ne administration bu ñoo fay ne salle de formation ak lépp loo xam ne centre war na ko am incha allah danañ ko fa def waaye ñu ngi jël am nuyoo ak siyaare nag buñ tuddee Sëriñ rek teg ko ci loxo mboolem sëriñu daara yi dana danañ leen yóbbaale waaye daal sama xol daa sedd ba mënumaa wax mënumaa wax ndax sama xol daa sedd ndax koo xool rek da ngay bég waaye centre Iqra daal mi ngi noonu ay prosem mooy di former waaye ku bëgg foo jàngale nga ñëw mu wutal la foo jàngale waaye gone yi nga xam ne dañuy réer ne ci mbedd mi mu fexe ba di leen gindi ngir ju bañ yaroo ci mbedd mi loolu ab liggéeyam dafa mel ne waxtu wi dafa jot te timis ji daa jot kilifa yi war a ñubbi fi sori tam xat lool moo tax nañ tënk foofu kàddu gi rek incha allahu taala bu fekkee suñ bokk journaliste si dafa am yeneen ñuy laaj buñ noppee incha allah ñu résumé ko incha allahu taala kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp sëñ Mata jërë jëfati jërë jëfati sëñ euh, euh, sëñ Maamoor Mbàkke Tuubaa ci kanam macha allah moomee sëñ Mata sañ son santal ñu ko bu baax a baax yóbbante ko ak cant yi ci sa rak sa mag ju baax ci sëñ Maxtaar moom moom it wax dëgg yàlla bokk nañ njëkk bi ñu demee bureau dañoo wax ne liggéeyal liggéey lu baax rek daa xaw a jafe ndax boo ko dee def nit ñi njëlbeen moom duñ ko xamagoon waaye nekk leen ca rek waxtu wu ñu ne it ñu nekk mu nekk ci ànd ceeg ñun di ñu conseil di ñu jàppale bu baax a baax liggéey bi nga xam ne say say maam say waajur say nijaay say ñëpp murid yëpp dénk nañ la ko muy Tuubaa ci kanam yàlla yàlla woyofal yan bi ba nga àggale ko te lépp mooy. defar Touba defar dekk bi defar dekk defar nit ñi defar yépp kon yalla yalla def ñu fekk ñun ñëpp kon serigne Sam kaddu gaa gi noonu ngeen yóbbante len serigne Ahmadou Badawi sama mbokk ci yeen sama imam nga xamne gannaaw yalla lo mer rek ñoma sama ñom damay wax ne ño mer rek ñoma serigne Mahmadan Mbacke wa ko serigne Massamba ñi ngi fi sama serigne serigne Moussa Massamba du ma ko fatte mukk yaaka naa ne jaar na ngon fu bare bare ci yarma ci njambar yarma ci ak góorgóorlu xam naa sax du ma jàmbaar waaye jéem a jàmb jéem a góorgóorlu xam naa maa ngi jaxa sa wax ji kon maa ngi jéglu baax sëñ ma sàmba nga nuyul ma ñi ñu seqal liggéey bi ñëpp si euh, Samb sëriñ Jilu Mbàkke waa AF bi yëpp sëñ Abdoulaye Sey ñu bokk dëkk Njaamur mu doon surtout nibraasu Njaamur ma sàkku woon mu ñëw teew fi ndax dafa am jëmm yoo xam ne foo leen gis rek alhamdulilah sëñ Abdoulaye sama nijaay mi ngi noonu moom it liggéey bi ñoo koy ànd damay bañ lim bu ma limee rek danaa bàyyi ñu bëree bëree bari maa ngi jégg lu baax sëñ Moutala Mbacke moom sëñ Alhaaji sañ sëñ Samdu la nga xam ne sëtu sëñ Moutala la barab bi waxtu wu nekk day soññee lu fi manque ndax ñu ngi lay toppatoo lépp ñu ñu ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf kon sëriñ Basiiru ñu ngi sàkku nga ñaanal mbooloo mi daal ñëpp am ay tawfeex suñ bokk presse bi yëpp it ñu ngi leen di sant presse bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax liggéey bi kat su su dul woon yéen a nit ñi duñ ko xam yéen a jot li yëf yi ba nit ñi xam ko kon yéen wax dëgg yàlla mënu leen a njàng ci liggéey bu mel nii jërë ngeen jëf ñi ngi leen di sa di leen gërëm jërë ngeen jëf saako laaw xayr jërëjëf Serigne maam Serigne Dia ci liggéey bi kon dañuy ñàngu ñaan Serigne bi ñaan Serigne Bachir Serigne jàkk jaa ngi